internautes Média 7 ñoo ngi leen di nuyu te di rafetlu seen ànd ak li si yéenekaay yi dañu koy door ak le soleil national xëy di ñu dégtal la tukkee woon ca conseil des ba woon démb si njiitalu njiitu réew mi Macky Sall boobu nag bokkoon na la ca gën a fës wàllu ko njàng meek njàngale mi moom Macky Sall mu xamle ci ni lu ñeel élèves yi nga xam ni dañoo nekk si kalaasu yu examen dinañu door seenu ko njàng ñaari fan si weeru ko bi ñu nekk bi ñu jëm dee naka ñi nekk ci daara yu kawe yi conseil ba ñaan na ngir autorité yi ngànk wàll boobu ñu xalaat ba xam nan lañu mën a def ngir dooraate njàng mi ci diggante ñaar ba fukki fan ak ñeent ci weeru ko juin bii di ñëw jëwrin bi ñu dénk wàll ko njàng mi ak njàngale mi Mamadou Talla moo ngi ñuy gën a faram-fàcceel mbir moomu ci l'observateur yéenekaay ndax xamle na ni ñaari fan ci weeru ko juin bii ñu jëm ñi nekk ci classe examen maanaam ñiy def ba BFEM wala entrée en sixième ñoom la soxal ndax si lañuy delluwaat ci classe ya ba noppi examen ya dinañu ko amal si weeru ko août bii ñu jëm it dinañu jël matuwaay yi matuwaay si war ngir sàmmoon tekk xeex bi ñuy xeex coronavirus bi si mel ni thermoflash ak gel hydroalcoolique ñu ko amal si école yépp ba noppi élèves yépp dinañu takk ay masque ci l'observateur yenn kaay sax lañuy desandi fekki fa kii di Pape Moussa Thior di expert en santé publique moom nag li mu wax sunu naataangoo yi rek mooy naam corona bi lu am la waaye ni ñu ko waaye ni ñu doxalee di gën a tiital askan wi bu dee wax dëgg rek feebar bi àggu fa. li ko gën a jaaxal nag moom Pape Moussa Thior mooy fi ñu teg kaa communautaire ndax kaa communautaire nekkul lu bon mu teg ca yit ni ragal la am ragal la am ca Europe ak ca Chine. warul tax ñuy tëj ay école jàkka yeeg yi ak di amal couvre-feu ndax ñoom dañ ñoo bëgg rekk tiital ngir man ñoo xañ situation bi ñuy dund. Libération yéenekaay moom li mu fësal rekk mooy témoignage wu kenn ku corona woon ba wër Ibrahima Sène la waa ji tudd mooy cas communautaire bi doon liggéey marché Ocass bu Touba comme visile moom nag xamle na ni. corona bi neexalul kenn teg ca ni corona bi lu ñu ci wax rekk des na ndax bépp matuwaay bu ñu waxoon rekk moom jël na ko ngir mucc ci corona bi terewula feebar bi dugg ko moom nag nee na ci hôpital Daaru Marnaan la doon sajoo te démb la génn mu teg ca ni liggéeyu vigile moom da koy bàyyi ndax bi mu koronaawee waa ji mu doon liggéeyal moo ko njëkk a wan mu teg ca ni waa ji dugal corona bi ci ci Sédhiou ba wàll ko ñaar fukki nit ak juróom bu wëree dañu ko war a yóbbu si yoon ndax moom Ibrahima Sène nee na li mu gis mooy jàngoro ji ku koy soofantal wala nga koy ñàkkal fayda danga ko xamul keneen ku korona te moom it am na lu mu dénk waa Source moom mi nga xam ni moo nga tëdd sa hôpital Daaru Marnaan si téléphone la xamalee sunu naataango yi ni mu yëgee ni am na corona bi ñi mu jot a amal contact te kenn confiné wu leen ak bi mu waxee waa kër docteur lañu ko tontu lépp suusu a ah, xëy na ko fësal si xëtam bu njëkk ñu wax si covid 19 beeg tolluwaayam si réew mi démb àllarba ñaar fukki fan ak juróom ñeent si weeru ko avril bi ñu nekk docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye di directrice de la santé publique xamle na si le soleil yéene kaay ni juróom fukki cas ak juróom ñeent yu bees lañu am si juróom ñett fukki téeméeri test ya ñu amaloon ñu amoon si tamit juróom ñett doomu aadama yoo xam ni ay cas communautaire lañu xamle na it fukki nit ak juróom-ñeent yu nekkoon kër docteur te feebar bi tëraloon leen wër nañu. ba tax jëwriñ bi ñu dénk wàll ko wérgi yaram di Abdoulaye Diouf Sarr di wax si la tribune yéene kaay ni tolluwaayu coronavirus bi si réew mi. ba tey jii mën nañu ko contrôler ñu jeexal ak source a ñu fekkaat fa Abdoulaye Diouf ba tey moom nag xamle na ni lu toll ci téeméeri lal d'hospitalisation di maanaam pour ñi ñuy faj ak fukki lal ak benn de réanimation di pour ñu sonn def nañu ko ci hôpital Dalal Jàmm ak lu jege téeméeri lal itam def nañu ko ci aérogare bu Yoff fii lañuy ñuy narkeppee li ci yéenekaay yi ñu jox leen dig daje ëllëg ak jàmm jërë ngeen jëf